aleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu su ngeen gisee fi ñu toog nag ak ki ñu toogal ngeen xam ne ñu ngi ci biir banlieue bi ci xolu banlieue bu la neexee parce que ñu ngi diggante Diamaguène Thiaroye Zamzam ak Yëmbal foofu la ñu nekk maanaam ci environnement boobu la ñu nekk foofu nag suñ ko waxee day am ay xale yoo xam ne suñu xel day dem ci ñoom bokk na ci koo xam ne xale la mais macha allah mu ngi wane boppam si làmb muy alias Biram bu nekk écrit Bawol mbooloo tey nag ñëw fekk si ko fi nga xam ne nii fi lay yeewoo zam-zam bu la neexee comme ni ma la ko waxee léegi comme ni ma limee quartier yi rek parce que foofu lay yeewu ci secteur yooyu ma la limbal mu jëm ci combat boo xam ne le 9 juin lay am digganteem ak kan caatu ngéwél bu yoof mel ni nag combat boobu fi mu nekk nii ñëw na ndax ku ne xam na ne talaataay ndeer amoon na waaye jàppal ne àllarba jooju àllarbaay ndeer lay doon ndax la ca nar a xew nar a metti bokk na ci combat bii nag ca la nar a xewee muy alias biram caatu ngéwél tey nag ñu seet si ko fekk ko saal gis ngeen fecc na puus na ay weñ lu ne def na ko pour wat mën a ne pare na moo tax nag ma bëgg koo nuyu ziar ko may nuyu ñi nga xam ne tamit moom laa ko fekk mu nekkal ñoom caatu yëmbal ñoom jaxal ak caatu caatu zam-zam bébé xayu ah ak mbër yi ne ci champion bépp waaw waaw waaw du mën a ñàkk mbër maa ngi lay bëggee waaw ñu ngi lay fay baaba kër di wax onze billah bismillah inna wali yàlla mhm. jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba eh, yàlla rek ay dëgg te mooy borom dëgg moo fi jox Bamba dëgg ba tax mu daal di signé mhm. Bamba ne wasalaamun xalal ma ne tabaxlahuda jërëjëfe Serigne Touba waaw ah, gannaaw bañ santee yàlla julli si yonent bi di gërëm sumay ñaari waajur di wax suma yaay yàlla na ko suñ borom xaare àjjanay firdawsi ak mbooleem jullit bu mu fa fekk suma papa suñ borom bàyyi ko fi ba mu mën a fekk suñ njëriñ di gërëm suñu sëriñ suñu wasila sëriñ Basiru Fall alxuraan di wax yàlla nañu suñ borom taas si leeram parce que jour bi ñuy def émission bu may doon def ak seen waa ji si suba gi la làqu xam nga mooy bu ñu signé combat bi rek si suba gi la làqu di bàyyi gërëm tamit xalifaam bi nga xam ne moom la fi bàyyi muy sëñ Bada sëñ Gunda Bas ak ay raqam sëñ Bada Bas sëñ Modou Fall xam nga njabootu maam Seera Fall bi yëpp ñu leen di siyaare di siyaare sëriñ Maxtaar Mbacke Noreen ibnu sëriñ Bay Mbacke ibnu maam Thierno Aïssa di siyaare sëriñ maam Cheikh Fall ibnu Cheikh Ablaye Fall Ndar borom Touba yëmbal xam nga di ko ziyaare bu baax di ziyaare sëñ Fallou Mbacke tamit sama xarit di ziyaare sëriñ Mbacke Bousso Mara di ziyaare sëriñ Ousmane Mbacke Noreen borom guy Fatou Mayga di siyaare maam Thierno Fall waaw di siyaare tamit maam borom daaru di siyaare Cheikh Ahmadou Karam waaw di siyaar tamit bépp jullit bu fi nekk tarixe yëpp tarixe seex waa kër Baay Laay xam nga képp kuy jullit rek nekk kilifa diine ñu ngi lay siyaare bu baax. am na solo ba ci suñ mbokku chrétien sax. Ah, ñu ngi leen di siyaare waale man man sax dama am ay papay nag. voilà man séeréer laa. <laughs> ok kon ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar macha allah am na solo alias nga jëm ci bés boo xam ne ñëw na ay fan yu néew ci des. li ci des sax matatul fukki fan ak juróom mm-hmm. yaa ngi dégg parce que fukki fan ak nangam rek a ci des mu si diggante ki nga xam ne nii moom mooy caatu ngéwél alias fekk nañ saal bi nga ne ci wàllu musculation bi alias ndax pare na waaw ñu ngi si combat bi ah, ñu ngi si mën nañ ne daanaka pare nañ wax dëgg fa yàlla ndax ki ñu jox combat boobu ba léegi moom boo toogee ba heure bi naan pare wu ma moom waxit kasaw kasaw la mm-hmm. pare nañ bëgg nañ combat bi xam nañ fu ñu jëm mm. waaw te ànd nañ seeg suñuy mbokk bu baax a baax a baax mm-hmm. te combat bi Babacar maa la ko wax am nga maa ngi koy dégg mu ne lépp lu am moo koy def mais sens contraire bi la wax ñun arène nationale la ñuy bëree grand combat bi sax ñëwuma leen. ci mbooloo ci mbooloo dañ daan paas dix huit mille dix neuf mille lañ daan jël ay car. dem Ibamar te Ibamar gis nga moom su ma bëree ñu ne alliance grand combat yóbbul ma fa mbooloo lu dul armée sama premier combat arène lu ko mooy kuñ tëgg grand combat ma bëree pare da nga naan bu ñibbi. rawatina arène nationale bii ñuy jëm pare nañ bu baax. pare ngeen. léegi damay ñëw ci pare googu parce que dinañ duggaat ci caatu ngéwél bu baax a baax. Mm-hmm. mais euh, alias ñaata combat nga def arène. waaw def naa dix xaw ma onze onze combats. ñaata victoire sept victoire deux défaites benn sans verdict. Mm-hmm. sa défaite yu mujj da nga ko teglante wala. non teglewu ma ko sama premier combat laa daanu mm-hmm. kan moo la daan. dund sama premier combat. dund mooy juru ak armée ok tabax gi de ak Iba Mar Diop stade waaw. voilà bëri sama fa tegle sept victoire. ok si laa ñëwee yaakaar naa bëri bëy bis mi waaw bëy bis mi daan ma. ok après mu bëreeg bi laser mu nekk sans verdict. mu nekk sans verdict. am na solo kon foofu nga toll nga ñëw dugg ci caatu ngewel caatu ngewel dama li ma lay jëkk laaj si moom mooy ndax xam nga caatu ngewel. waa non xam naa ko rek comme xamu mbër nag. Hmm. waa xam naa ko comme xamu mbër quoi. Hmm. xam naa ne tamit ndaanaan la champion la. waaw mi ngi def ay jéego moo tax tamit ma pare pour bëreeg moom quoi. nga pare pour bëreeg ndax ma mën naa ne soranteewuñ si làmb mais defoon naa jéego yoo xam ne xawoon naa leen fee bàyyi. Mm-hmm. waaw parce que ñëw bëre ay combat risque nag. Mm-hmm. ba ma bëre koo xam ne moom maa tolloog moom wala maa ko ñi ma bëreel ñëpp. Mm-hmm. amul ku ma si bëreel nga ëppee ma kilo kilos 20 kilos jëm kaw. waaw kon ma defuloon jéego duma nangoo bëreek moom mais nag ndaanaan la. Hmm. waaw mais ndaanaanam sama kaw ndaanaan mënta nekk. mënta nekk non non. loo seetlu ci moom ah, ndaanaan la nii rek duñ ci yem loo seetlu ci moom ci ci ci ci ci bëree ndax fit ba rëy na ndax bëree ba bëri na ndax xeex ba bëri na. non wax dëgg fa yàlla si côté boobu moom aw ma lenn lu ma seetlu si moom ndax amul lenn lu ñuy wax si làmb lu war a joxe ndam lu ma caatu ngewul ëpp. ëpp la fit bu dee bëri maa ko dàq fit moom. bu dee yàggal bu ñu dëkkee farba juddoo farba far farba yëmbal fii nga naan ñuy fit moom loolu beneen détail la xam làmb pour man gars yi ñu ngi naan fit si làmb mais amul mbër buy takk ngeen bu di ragal. Hmm. yee amul mais caat moom si ay côté fit man ak moom loolu garaaw. Hmm. buñ ne woon daan rey tey tey tey pare naa. Hmm. Ah, bu dee bëre maa ko dàq bu dee xeex maa ko dàq bu dee ñeme lu metti maa ko dàq. foo teg ne yaa ko dàq bëre. non bokkul xoolal ay combat caat xool samay combat rek. Babacar caat combat bi mujj metti woon na de. non combat bu mujj te bëre feeñ na fa de. moom fils de Sallou parce que ñëpp dañ ne woon. keroog ña fa ñëwoon dañ ne woon caat mii li mu dugg tey xamu ci. non xam nga adversaire tamit dafa bokkul xam nga xam nga nga nekk di bëre champion le fils de Sallou maa ngi koy nuyu parce que doomu Bawol la comme man quoi. waaw mais xam nga adversaire dafa ute. Hmm. parce que mbër tur dina am mais mbëri tamit bokkuñu. mais boo xoolee ay fils de Sallou ak ay alliance du làmb bu doon dañuy bëre benn promoteur du ma woo di ma wax ay fils de Sallou xam nga parce que bokkuñu niveau bi ñu doon bëreel bokkuñu ay adversaire yu bëreel kon bu dee da ngay gisee si bëri naag ay fils de Zallo wala bëri naag yeneen façon bëree ba wax bu mu bëree fils de Zallo moo metti moom laa la wax si adversaire adversaire gis nga booy bëree ak sa morom day metti mais booy bëree koo xam ne moo la mën ëpp la doole sa waay demul de ah, ñëpp dañ ne woon fils de Zallo ko ëpp doole si non bokkul de Babacar maa la ko wax fii ah. caat dinaa ko teg lu metti man nag amaana wax ju sax mu néewu ma ko guleet sax combat bi ma bëree koo xam ne dama fi nekk di wax ñu bëri loolu may sëkkee parce que kenn xamee ay wax mais day am bëri yoo xam ne euh, ah. maa ngi koy dégg ak moom parce que moom daa laaj la mais yow bala ñu wax Malick Niang yow caat mi nga jàkkaarloo mu daan bool bool yi étudiants yi dégg teg leen lu metti ñu ne déet ne waaye yëmbal yaa ko wax sànq. waaw ñëw na fi daan metti daan na yëmbal quatre ah, personnes ah caat daa mel ni yàpp na fi nga dëkk yàpp na say mbokki bawol bool yàpp na say dëkkandoo waa yëmbal waaw nee naa bu mu jàmbi si man la des étudiants yi caat min na leen de lu ma la caat bu jugee si man caat yàpp leen bu jugee si man laa la wax caatu yëmbal laa koy jox wala jaxal seeraas moom kay na assumé loolu rek moom bu ma daanee na nangu na ma jox booyam bu mu bu ko neex mais na pare bu ma ko daanee mu jël booy man Babacar làmb dafa am loo xam ne fa laa war a dem Babacar man benn mu lenn mooy sama problème mooy jàppale. wóor na Serigne Touba damay bëre day metti imaginer combat bu toll fii may bëre ba nii may wax yow nit yëkkatiwul dix mille francs ne ma am maa la ko jàppale. combat bi kañ la taxaw. yaa gën na dafa dafa fii ñu dëkk yëmbal bi fii dafa doon kàmb dafa metti boo amul gëm-gëm tuuti xam nga da ngay xaati. na sëriñ Touba ah, mais eh, say ah. booy yàlla seetaanu ma quoi parce que may na ma ay booy yoo xam ne jaral naa leen. dañuy def lu ne wóor na Serigne Touba pour samay ndam man ñoom laa jàppee sama lépp da ngay da ngay da ngay toog yenn saa da ngay xonet quoi wóor na Serigne Touba mais lépp lu mbër di am mu ngi si man. bëree fit ak bëree fit doole bëgg sa liggéey def gëm sa bopp xam fi ngay teg sa tànk lépp a ngi si man. mais est-ce que du loolu jaar-jaar la boo xam ne début la xam ne début boo gis day. day waaw mais am nañ suñuy morom yoo xam ne ñun li ñu def si làmb ñoom xaaju ñu bay def xaajaat ba mais tey seen i autorité ñu ngi leen di jàppale bu baax li ngay wax nii du man dong de. man fi da ngeen amul autorité wala fii ci yëmbal beeg caaro yeeg. amuñu dara autorité yi fi nekk seen bopp lañ fi nekkal man samay wax du neex. Hmm. nekkaluñ fi kenn seen bopp lañ fi nekkal. bàyyi imagineel Babacar ku bëri. Baara Gaye du mooy seen maire wala. wala du seen maire mooy maire yëmbal mais man de du sama maire parce que. taxawul ah, benn doomu dëkkoo ci commune taxawul benn doomu yëmbal laa lay wax man li may wax nëppuma ko ni ma la xamee nii laa ko xamee. Baara Gaye dañuy bëri est-ce que déggool ma lax wax ma benn combat ay combat laa bëri mais lépp lu mu la wax du ko def. loolu doy na xam nga day dem ba bëri naa ay quelques combats yoo xam ne dematuma si benn autorité samay booy laay xaar ñu def ay affaire samay ririkaak lépp man combat lépp lu ma am mu amee combat dama ko siy def xam nga loolu tamit neexul nga jël benn affaire. Mhm. Modou mbenn Diop moo fi nekk moom it li may wax Baara Gueye laa koy wax jàppalewul kenn man amul ay doomam sama xarit laa kii sama xarit la jàppale ma la yëmbal. amuñu autorité bu fiy jàppale kenn man sama benn papa laa fi am mu may jàppale te de bu dee 1000 francs sax mu koy bokk ak man quoi. xam nga muy Thierno Diop moom dew ma si moom pour autorité dama dem si moom comme papa ak doom. mais que yow ak wax nii ak yoof gee xam ne dañoo booloo doon benn. dafa am jàppale man nekk benn écrit tey ñoom Malick ñaam ñoom ñoom caatu yoof ak ñoom tout le monde ànd ak ne ci ginnaaw caatu ngewel. dama leen di nga yaakaar kon yow. dama leen di nga koo ji. loolu ñu def noonu dama leen di yoof li ñu def noonu du question dara mais dama leen di seeni autorité ni leen di jàppale parce que nit amul lu dul doomu dëkkam ñun bu ñu bëree dañ naan doomu yëmbal mooy bëree ay doomu yëmbal ñooy topp suñ ginnaaw dem kon yoof bu ñu taxawee di jàppale caatu ngëwal dama koy ñaanal yàlla na gën a yokk parce que nit amul lu dul fu mu dëkk mais ñun bu ñu amoon loolu jël mais amuñu ko suñ autorité yi fi nekk seen bopp lañ fi nekkal lu ñu la wax bu si dóor sa doom bàyyi ñun war nañ dépasser foofu li may wax ni waxuma ko pour man dong de pour 100 pour cent yëmbal bi yëpp laa koy waxal sam-sam bi ñun loolooy suñ problème fii Babacar fii booy yi bëgg nañ làmb gëm nañ làmb mais ku ñu teg loxo lañ amul. mais est-ce que euh, lii boo ci continuer yow xalaat nga ne psychologiquement. waaj du la du la. non non non non man combat daan na ah. gën a combat parce que tamit li nga wax nii. bu ce que génn ci dina yomb. maa jàmbaar gën a tar. jàmbaar moo ëpp doole caatu ngéwal moo ko gën moo ko dàq bëre. lii ma dund nii dund naa lu ko raw si góos jàmbaar. Babacar déggul ma la. musu caatu ngéwél doole est-ce que doole daan na ko. non caatu ngéwél doole bëre xeex moo koy daan mais man lii daan caatu ngéwél moom bu dee day dëgër sama côté man war naa xoolaat sama bopp bu baax. Hmm. waaw li war a daan caatu amul lenn lu war a metti si man mais daa am benn ministre boo xam ne dafay dëkk. mooy kan mooy Amadou Hott. fu mu dëkk yëmbal la dëkk. Ah, fii ci yëmbal. waaw yëmbal fii la dëkk. waaw waaw ñu mu jàpp si combat bu baax a baax a baax. bu fi ñëwee tamit. Mhm. def ni ñeneen ñiy def. Mhm. ñu toog fii wax ni ñeneen ñiy def ne ko carrément nii ak nii boo ñëwee si dëkk nit même mun ko ko bañ a jàppale si xaalis mais nga wax ko dëgg nga jàppale ko sax si conseil. Mhm. parce que du ñëpp la war a defar loolu dañuy comprendre. du ñëpp nga mun a jàppale waaw waaw du ñëpp nga mën a jàppale mais bul daw nit ñi. fii boo fi nekkee di daw nit ñi tamit nit ñi dañuy taxaw wax ko. Gana Mbaye maa ngi koy woo si combat bu baax meeru Bambey. bu Bambey waaw sama xarit moom la xaalis rek mais wóor na Serigne Touba sama carrière da siy géelu so am solo. Hmm. parce que day yàq temps woo ma téléphone. day gànn mën nay waxtaan ak man une heure barki Serigne Touba même bu dee du la jox xaay sax dina toog conseil la ñaanal la xam nga. Hmm. xamante yow nga xam ne kii bëgg na. mais est-ce que écrit bi ngay écrit bi nga nekk tamit ñu ngi ci yaa nga yaa nga ànd ak ñoom ci combat bu muy bool mbooloo. waaw ñoom laa àndal Ndiaye bi may ñëw nii rek ñu ngi déggoo. yéen a ci contact yeeg yooyu. waaw waaw ñu ngi contact ikiri ba waaw ah. ah, ñu ngi contact sax ngoon yaa ngi dem yaa maa ngi dem ikiri ba hmm. bu ma nekkul ikiri ba maa ngi ikiri jali Birama Coor hmm. mais comme combat bi ni mu gën a jege seeni moom xam naa ikiri ba rek ikiri ba rek di leen di nuyu waala tamit hmm. ndewaan suñu entraîneur Ibra Njaay Tin suma waay xam nga Soose Maane Zal Bambay Moodu Taalibe Candeela bébé Lambaay ikiri ba ñëpp rek ku dem rek juum. waaw mhm. ah, waaw ñagas xam nga sama grand dafa mhm. leer. Mhm. di siyaara tamit suma mbër yi nga xam ne ñoom laa nekkal fii. dafa mbër. jaxal seeraas. caatu yëmbal bébé xayu xam nga caatu sam-sam. ak maacu di woo tamit suma benn grand li ma la wax ne ma bëgg nga génneel ma ko bu baax. léppay génn muy Abdou Khadir. waaw Abdou Khadir Thiam. maa ngi koy woo si combat bi. Biram Ndiaye nekk itali moom wax dëgg fa yàlla gis naa yéeneem bu baax a baax a baax. booy Biram suma benn booy. mi ngi jàpp si combat bi xam nga di woo képp kuy doomu Farba parce que bëgguma fi nekk di tudd tur. xam nga da rëy na tur Farba ñëpp a ko xam. ñun dañoo faayital Farba man Farba tax ma dugg man yoon lañ laa mos a dugg police. am fa benn benn fan Farba hmm. tax. nawetaan bi nawetaan man ba coow Farba ba mos a dégg <laughs> man maa ko indi nañ ma fay boor bi nag. waa far Farba waaw dañ ma war a fay boor bi xëy na bëgg nañ nag mais yenn saa yi xam nga fii dafa metti booy dañuy bëgg dem sax mais man bu may dem stade lu may yóbbu li may bàyyi ëpp. mais am na ñoo xam ne dañ bu doon dimanche mooy dàq mais lamb dépassé na foofu. Hmm. nit ku la bëgg. Hmm. benn fan bu mu la yàqal pour man du dara. amut àllarba ak alterné. non non caam teranga caam teranga. men mi may dégg caam teranga men mi ngay dégg. Touba Caam suma grand. waaw dégg naa vocalam. waaw nee ko li mu wax noonu incha allah mooy am dinaa ñëw ba Pikine fekk ko këram ah moom daa bëgg nga seet ma ñëw këram dina ñëw ba këram parce que moom maa ngi moom démb la suma mag lay àndal xam nga démb la may nekk xale lépp si kanamam ñu ngi koy woo si combat bi ak suma grand yi waa Jaakaay Murit maa ngi leen di woo waa Jolof. combat bi dina gaaw. non mu gaaw mu yéex si moom lay dépendre. yow loolu ci gënal yow. barki Serigne Touba Mbacke bu bëggee dañuy taxaw xeex ba pare. xeex waaw xeex ba pare. xeex jaatu ngéwél non xam naa ne moom la moom moom loolu la loolu la am si yaakaar si combat bi. ngeen mu ngi daa war a xeex mais jàpp naa ne buñ xeexee dinaa ko duma duma yi metti yow mii nga duma caatu ngéwél barki alxuraan na yow ku ne ci keppaaru Malick bu jàpp ne maa ngi dégg ay waxam bu jàpp ne alliance dafa tële xeex mais dama la est-ce que yow seetlu nga ne est-ce que xam hmm. nga caatu yoof hmm. capitaine dina mut hmm. ja ñooñu nga xam ñëpp ay champion lañ ay mujja ñooñu ñëpp dañuy rêver pour bëri ñoom. te booy bi ci keppaar googu la ne. waaw man keppaar Tapha Tine laa nekk man damaa xool mujja damaa xool Malick Niang Malick Niang mu jugee si si moom la wax. wala déggoo ma la yow loo xool yow mais yow yow tam yow. maa ngi gis benn vidéo Malick Niang mu jugee si combat bi. ay xaw ma lu ko dal ak Malick Niang di man maa bëgg a bëreeg moom Babacar mais da nga jàpp ne daa nooy non Malick Niang mën a nooy Malick Niang dóor fi Adama Diouf naan arbitre siffle waaw <laughs> waaw yow mais man wóoruma lu nooy. waaw yow nga ne bëri na caatu ngeen ci Malick Niang xam nga combat bi muy taxaw man ak ñoon giin lañ dëggoon nga laa ay si box yi. Ah, kon xam nga waaw ñun ñoom ñoo. lu ko yàq si ñoom la yàqu ah xëy na boo laajee sekk na lox lu ko yàq ñoom ñoo fi nekkoon di joxlu ay prix yi xam nga ba comme tournoi bi yàqu kon ma neexoon mu ne du ma bëri caatu ngéwël mais ah, xam nga raw non ndaanaan la no rawu ma ko déggul ma la maa ngi moom sorante wuñ fi ñu duggee si làmbu ndaanaan la caat amul kuy taxaw si àdduna naan ay du ndaanaan ku ko wax da nga kaa wax lu la neex nii rek mm. mais man ak moom ndaanaan mënut a feeñ si man. yow daal waat nga ne bu xeexee di nga ko dum. di nuyu tamit Basir Koyaate ah ko yaate suma grand. Mm. maa ngi koy siyaaree parce que gis naa yéeneem si man gis naa lu ma yéene bu baax a baax wóor na Serigne Touba mais xam nga laay rëccu. Hmm. li ma ko yéex a xam. mais est-ce que physiquement ni contact bi pare nga. physiquement xam nga mbër contact. barke tey tey tey ma ñëwee stade bi nga xam ne pare naa pour maa caatu ngéwël. côté supporter koo xalaat mu noyyee am na yoo xam ne da ngaa baax ni di ma ko laaj rek. affaire affaire tey tey lu may ma de nit ñi ñoo bëgg a xam ñiy seetaan. parce que ay mbooloo dañ koy daan dañ koy gis. Ah. te bés ba bésu mbooloo la faram fu Franc di ñëw Tyson 2 Mama Lamine. déggoo li ma déggoo lu ma la tamit ku fa bëgg a feeñ faaw nga ni bool la ndax ku ne xam na ñooñu ñooñu ñëpp laa la wax ñeewu ma leen si côté boobu laa la wax Babacar man Farba laa dëkk doomu yëmbal laa di siyaare saa pour cent yëmbal bi yëpp 100 pour cent yëmbal bi mbëri fi nekk am combat ñëpp suñ borom may leen ndam man dawuma loolu noonu eh, awma lu may sóoraale si côté mbooloo hmm. man mënuma dëkk far Farba di àdduna farba waaw mu dëkk fi naan damay suuraale ay mbooloo ay affaire yooyu noonu man kay xam nga leen rek la ay jooy mooy na gars yi ñëw teg ci loxo teg ci loxo sama grand yi bu autorité yi hmm. que loo moom wala loo bokk wala koo xam ne kii sa mbir la bàyyi bul xaar la si woo hmm. parce que mbër mi mënut a woo ñëpp xam nga mënoo am combat kër gu ne nga dugg fa mais yow loo bokk bul xaar ku la woo képp ku seetaan lii nii jàppal na mooy sa woote mooy sa appel waaw mooy sa appel Codé Fall hmm. président 100 pour cent bi maa ngi koy woo si combat bu baax ak suma mag bi nga xam ne si laa topp muy ànd ak moom Baye Sall Seydou Bamba Dieye yaa ngi dégg bu baax li ma la wax. ngañ daaf ngañ demba suma gaayan bu may àndal. ma laaj la leen alias foo ah. dëkk si man Battal laa dëkk. Ngoy Aliou si la Ngoy Aliou si la nga dëkk biir Ngoy. biir Ngoy Battal. est-ce que yaa est xam nga waa Ngoy yow mi est-ce que. man sama turandoo man maay borom mbaare man lañ ba biram lañ ma tuddee bàyyi biram man lañ tuddee borom mbaare man suñ kër ngi foofu battal seen kër famille ngi ngoy sama raqu papa mooy chef de quartier foofu. battal ngoy wàcc battal waaw. Ah, kon doomu bawal la. doomu bawal kii hélas xam naa ko mu dëkk ngoy la dëkk. ngoy Aliou Sy la Aliou Sy la moo doon buurub ngoy moo daan ñëw fekk sunu maam yi ñu bay ba pare mu ne teg leen fii. xar yaag bëy yaag def lu ko neex waaye sama benn maam bu ñuy wax Eliman Ngom yàlla na ko yàlla yërëm moo moo poñe woon fas wa xam nga njaam goo gis am na ko koy jeexal moo poñe woon fas wa ca dëkk ba ak yaay duma ko duma yu metti wallaay boo demee soir ba nga laajte ko ñuy nuyu ay doomam doomam bi fi nekk suñu papa Moussa Ngom dëkk fii si Yaraax ak ay sëtam yëpp Eliman Ngom moo def loolu ci sunu maam loolu moom am na ca fa nga xam ne nii moo doon histoire ak Aliou Sile muy waa Ngoy yëpp nag fépp fu moo di nuyu tam ay doomu si Sile waaw uh, wala ay sëtam boog di moins waaw waaye daal xam naa ne foofu moom ah bu dee fa nga dëkk moom leer na nañ na kon bool bool pour cent parce biram bu bool bool bu bool bu bool gaa yi daal est dëkk de falaa dëkk mm. waaw falaa dëkk de suñ kër ngi foofu foofu taxaw laajte kër ñoo doon alliance ñu woon la ko falaa dëkk si nday si baay sama yaay mi ngi dëkk baari ndondol après Cessene. wax nga waxati Bari Ndondol waxati dëkk bu ma xam kay. waaw man daanaka foofu laa ñaay joyin sama maam fa nekk Jigaan Sarr. joyin Sey Tukaar Tukaar. waaw Poudaay. man mën naa ne foofu yëpp sama secteur la. foofu say dëkk waaw ay ngaskop. waaw kon man. fa nga bokk euh, Boy Niang. waaw mais Boy Niang amul wax ndam rek Tafa daa am lu ko si war a xaar. lu dul ndam. yomb na ah yombul de yombul de bëri booy ñaa moom ku ne la yomb na da lay nax. Mhm. waaw mais nag warta tafaa warta toog di suut booy ñaa si dara. waaw mhm. ah, ndax bu dee bëri bu ko daaxul booy ñaa booy ñaa daa ko bu dee doole ëpp ko ko après li des mooy defaru rek ak waaj. defaroo ko waay waaw te gëm naa ne ñu ngi ñu ngi si combat boobu bu baax a dëgër ci côté bombardier non dëgg fa yàlla na ma yàlla ji gars yi baal mais pour man luy rey làmb la quoi. lan mooy rey làmb. yi ñuy def nii

yow nga jëlaat mbër boobu fesal ko léegi nit ñi duñu waxtaanee combat bi combat bi rek la waxtaanee te yàlla daa bind tamit yemalewul daa am ñoo xam ne dañoo am coow combat bu am ñoom rek la waxtaanee xam ne ah, ah, day ray non day day naa la wax fii loolu de Babacar Babacar gis na Serigne Touba non business la dégg ma la waxuma la bu fi ñëwaat beneen combat suuf mais nañ ko signé xaar ñoom ñaar ñu bëre ba pare xam nga contrat contrat la rek. waaw après nga doog a fësal. nga doog a fësal waaw mais imaginer ñaata mbër fi nekk yu amagul combat ñaata combat lañ wax la Balla Gaye signé. waaw mais Balla Gaye est-ce que du ay ay ay nu mu tudd moom moo bëgg a bëre rek. waaw mais bëgg a bëre mais bëgg bëgg utal koy combat. alliance imaginer combat yooyu ñu am lu baax la dina dina dina yokk koom-koomam waaw dina yokk koom-koomam. waaw et puis dina am dina am compétition bu baax. mais pour fësal bi waaw pour yow daal fësal bi rek moo la ci moo la ci moo la ci arrangé moom moom képp ku am loolu loolu moom say droit nit ku ne am nga droit ne du yoon ah waa loolu day moom ñun beneen affaire loolu moom mënuñu caa eh, eh, yow loolu sa ah. gis-gis la ku nekk ak sa gis-gis ah, kon loolu mooy li nga xam ne nii day eh, moom lañ ñëwoon jël si ko looy wax waa Vox Arena ak seen mercredi bi ñu leen tëgal ak combat yi ñu boole waaw di kontaan si ñoom rek di seen lii ñu def nii quoi mhm. parce que bu leen neexoon tamit ñu def ni ñeneen mhm. mais wax dëgg fa yàlla ñëw nañ pour yokku làmb parce que boo xoolee jour journée bi ñu tëgg rek waaw journée la làmb la wax dëgg fa yàlla amul kenn ku fay ñëw naan gisuma làmb wala gisuma ay mhm. combat yu neex bu doon dimanche nag amaana mooy dàq foofu waaw kon dina gën a neex dina a neex mais nag. lamb ji pour man jar na yàq ñaari fan quoi. jar yàq ñaari fan. parce que kuñ ne Franc Tyson 2 loolu sa waay. waaw dàq na ay lamb de duñ fi nekk di def ay combat xam nga <laughs> loolu rek lamb la. Maama Lamine. waaw Maama Lamine Garga 2 yow. Maama Maama Lamine waaw Maama Maama waaw sorewul noonu xam nga. waaw Maama Lamine rek Garga loolu grand combat la. wallaay waaw déet loolu kay ah, grand combat la ay grand combat rek yow yaa caatu ngeen sax grand combat non dama dama la joxe noonu rek pour Frank Tyson 2 bi xam nga la benn kii rek bu ñaala waaw xam kon ñu leen wax daal ñu dal jàmm ñëwaat tamit parce que bëgg ñu tamit ñu ñëw rek génnaat ah yow da nga bëgg promoteur yi ñëw bees waaw boxe arena gars yi ñu i combat jàppale mbër yi parce que am na solo lamb ku ñëw pour jàppale mbër yi mhm. dañ ci dañ koy di leen ñaanal tamit ñoo xam duñ bëgg seen lamb ji nii mhm. yàlla na leen ko suñ borom defal leen lu kawe seen njort mbër tamit ñu bañ leen rusloo quoi mbër yi fay ñëw yi bañ tamit dem ñu may jën may leen xaalis jënd leen yi billet ñu dugal seen poos comme ñi ko tëgg ay xale lañ ñun bu ñu demee nañ def nañ jéem a wane ñu nit ne ko ginoo ñoo gore parce que dañoo fay kase de dañoo fay xaalis waaw wax dëgg fa yàlla ñëwul di fayantu dañoo ñëw fay ñu xaalis fay leen xaalis waaw kon masañoon mbër yëpp dañ leen di ñaan rek ku siy ñëw mu jaral la parce que nooy mën a convaincre sa waa koñ ba benn fan bi ñu yàqal la ko xam nga bañ a xëy ñëw bu jagee ñun lay jagal de lambu mercredi man damaa jàpp ne si ñun la war a continuer di dem di dem maanaam les mercredi waaw saa yi di dem am na solo waaw man moom maa ngi ñaan yàlla bu ma bett promoteur bi quoi amin waaw yàlla yàlla képp ku ma bëgg nag mhm. man waxuma alliance ay da ngay bëri nii taxaw si koñ bi ay mercredi la damay xëy noonu man képp ku may tiitaroo dama lay ñaan nga yàq jour boobu bugguma sax ngay jaaree sa place di dem ñëwal nga yéeg añal ci koñ bi yéeg ci combat bi utali arène nationale comme arène baa ngi nii ngeen di di sama booy ma fi am moto bi tamit maa ngi woo ñëpp ñoom sax jaruma leen woo ñoom maanaam ñu ngi waaj waaw ñoom entraînement sax ma koy dem ñoom lay gunge ba biir arène nationale noonu la demee ak non violence ba tamit yàq sees tamit amut amatul ci arène bi de wax ci de da ngeen si yooyu waaw sees daal moom bëggatuñu ku koy damm ci arène alliance waaw kenn damm sees ku daan ku ñu daana ci yem kenn mosuma see joxoñ ñaanuma yàlla tamit joxoñ ma dañ koy fàttali arène nationale bi ñun lañ ko defal. waaw c'est pour bu ñu yàqee suñu yëf lañ yàq ñun lañ yàq mais nag ma sañoon côté boobu tamit war nañ si taxawaat jàngat quoi pour mbëriñ si aj waa xam nga mbër biy bëre tamit mënul contrôler ku nekk si kaw

indi ci arène bi. waaw loolu mooy yoon il fallait que loolu moo alias. mbër mi moom mooy moom la ñu topp. xam nga yow tey booy bëri si yow yaa ngi woo sa waa koñ. Uh-huh. yow ñoom booy ñëw yow la ñuy àndal. waaw boo paree kon na loo xam ne su amee yow mi acteur bi yow la ñu mën a. boo paree boo paree boo paree boo paree nga déglu ma wax la. di ah, nga xam xam nga nan la demee. bismillah xam nga lamb simple kenn du ñëw. luwee ay car c'est fans club topp la. xam nga nañu waxante dëgg tamit. Babacar waaw am na amaana sécurité bi ñu doon jël bu ñu ko jëlee. premier damm sees ba ka njëkk a damm sees sànni bu sécurité bi ñëwee jël ko yóbbu doo gisaat ku damm siis mais loolu li tax mu am keroog bu booy damm siis nañ waxante dëgg tamit police yi ñi taxaw di leen xool parce que bëri wuñ mais d'accord naa mais alias est-ce que ñun dañoo war a amee moyen bu toll ni que ñun sëriñ bi moo njëkk a sëriñ bi sëriñ bi moo njëkk a suñu bopp sëriñ Saliou mbuus sax daawu ko dagg kon jeex na daan tekki yow moom yàq moom yàq moom yow mi xam nga ñu jël mbëri def leen fautif bi parce que man d'accord naa moom dafa am booy yoo xam ne amuñu yar mais yow mi nga xam ne yaay damm yow mi damm seize sëriñ Saliou la taalibi sëriñ Babacar Si la taalibi diw la nangam la nit ki nag boo koy tuddoo di ko mbubboo da ngay. jéem a koy jëfee affaire bi dañ ne la xam nga waru. am am am kilifa a mu jeex te police du fa ne. déggoo sëñ daan nga génn ñibbi ak say supporters ku mooy li am solo. boo ko amee nga solo boo amul amoo solo. yàlla nañu yàlla ku wéeruwul yomb bu max mais booy nag naa lax dara Babacar booy mbooloo boo si gis. dina am kenn koo xam ne sa waay. xel mi si ginnaaw lay fii. bien sûr waaw bu ñëpp yemoon am sa yoon nag mbir yooyu nga xam ne dañ la nee aj bàyyi ñu dawalal leen yaa salaam tamit parce que ay na lañ nekk si làmb loolu mu def geste bu nice la mais xam nga moom kiy def loolu noonu bu amoon ah, yéene benn supporteram du damm mais xam nga mënoo tamit ñëw si kaw naan booy nii ak nii am na solo alias eh. kontaan ci yow waay nga may ma rek ma gërëm ñi nga xam ne ñoo war a ñoom laa bëgg ñëw ci dama bëgg rek waa Equivox gaayib gërëm nga leen gaayib tudd nga leen ci biir dama bëgg waa waa waa ñoom ñëpp dama bëgg waa woote nga dama bëgg waa Equivox bi kontaan si jour bi non dinañu kontaan dama bëgg gars yi ñëw jàpp si combat bi oot ñu ngi koy woowaat bu baax oot waaw oot ñu ngi lay woo ñu ngi lay woo waaw Thierno Diop suñ papa ñu ngi koy woo ku fóotal mbët roccil bar noonu la demee alias dégg nga li mu wax dinañ ñëw ci yow nga tontu ndax baat lay doon ak tontu ci Equivox TV le 9 juin la Vox Arena ci arène nationale